asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokk way gëmi ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaara leen màggal di amaat mbégte bu baax ñëwaat fii tey tey ñëwaat rek amaat yéene ngir yokk ak leeral li nga xam ne ñu am yéene ci yokk ak leeral nag ñu sos ko ci waxtaan bi nga xam ne moom la fi mujj def donc defee ci këyit bi nga xam ne moom la borom daan bind ñetti fani xor yi ci atum 1427 nooraaniyatin minallahi laziim nga xam ne borom moo koy leeral ci aayab saalika hudallahi yahdi bihi man yasaa'u sa ibaadihi sadaqallaahul asiim mu koy leeral xeetu ñaar ñaar ba nekk juróom-ñaari mbir ci biir juróom-ñaar yooyu nag bi nga xam moo nekk ñetteelu point bi foofu lañ bëgg yokk ak leeral mooy fi nga xam ne fa la bind wax ne benn baat firiwu ci làkk bi dellu firiwu ci lim bi ci benn wax bi dafay xam ci biir waxu nit yàlla yi mais nit yàlla mën la wax benn wax boo xam ne ci làkk ba nga dégg la la koy wax nga xam lim jublu ci saahir fekk làkk na beneen firi boo xam ne ci wàllu baatin ci limba lay nekk lépp nekk ci benn wax bi loolu ne moom la misaale waxu sañ Fallou Mbacke bi nga xam ne moom moom la daan wax ne singoor mii na leen ko jàkk jublu ci bu leen ko piis na lay jur sëñ Fallou moo doon wax ñi nga xam ne ñoo bokk ci tarixa muridillaahi na leen singoor na leen ko jàkk mooy jox ko kanam gu leer ànd ak moom diiru li nga xam ne mooy nguuram waaye bu leen ko naqarloo ndax yàlla tànn na ko parce que koo naqarloo fiñ na la lay jural loolu nag moo nekkoon waxu saaxir bi waxu baatin ba mooy baatu jàkk mën ko bind ci xaajim ak keef xaajim ci saafu jaar mën nañ koo jàppee 3 keef nekk 20 muy mu jul ci 23 at yàllaa ko jox nguur gi bu leen ci xam naqar bañ dogal la loolu nag mooy na ko jàkk julli ci bu leen ko piis fitna lay jur tey nañ ñëw ngir yokk leeral euh, xam xam la xamle euh, li nga xam moom la borom bi leeral Cheikh Mamadou Abibulaye Seck ci sabab bi nga xam moo tax yàlla tànn Senghor teg ko ci bopp réew mi mu njëkk nekk président Sénégal ndax yàlla dafa wax ne moom yàlla moo bind ruux yëpp saa bu ko soobee mu jël benn ruux na ko jiital mu ruux yi des waaye loolu su ko yàlla defee yeneen ruux yi nga xam ñoo des dañuy wax yàlla na ko tànk tàmm diw su boobaa nag yàlla dafa indi benn sart ne sart bii la kii matale te matale ko leen ko. moo tax ma tànn ko pour moo la jiite waaw mu borom ne wax seex Cheikh Mamadou lay sekk na ko ki nga xam ne mooy Senghor turam bi mën nañ ko bind ci arab ci ñeenti xaraf moom mooy seen sitooy keef waaw ak muy Senghor xëy turam yëpp sax mooy si Sédar Senghor waaye nag li ëpp ci jaam ñi ñu koy xooyee ci turu Senghor Senghor boobu nag boo ko bindee ci ñeenti araf yooyu lim ko ci saafu jaar daf lay jox mille deux cent vingt six dafa bokki xaraf ak tur yàlla bu ñuy wax sakooru sakooru ñeenti xaraf nga koy bind mooy sin tooy keef waaw raa mu nekk 1226 te mboolem tur yàlla yi di 99 yi nga xam ne moo wàcc sayyidina Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam tur tur yàlla bu ñuy wax sakooru moo ci ëpp lim nekk 1226 su ma nag turam yi di mu bokkee ak tur maanaam li mu sakooru moo tax yàlla tànn ko def ko mu njëkk nekk président Sénégal ndax tur yàlla yi fekk yaa ngi leen di lim muy 99 yi. Euh, maanaam diggante un ba douze doog a bis benn boo xam ne moom bi génn na foofu waaye saa boo waxee treize rek ñu wax la ne kooku lim la tur yàlla wu ñuy wax ahadu ci saa fu jaar soo ne quatorze ñu ne kooku lim la tur yàlla wu ñuy wax waajidu ak wahaabu waajidu moom quatorze la wahaabu nekk quatorze fekkee quinze la ak seize ak dix-sept amul benn tur boo xam seen lim génn na ñetti numéro yooyu waaye saa boo waxee dix-huit ñu ne kooku lim la tur yàlla wu ñuy wax xayu euh, dix-neuf ñu ne kooku mooy limatu yàlla bu ñuy wax waaxidu vingt ñu ne kooku mooy limatu yàlla bu ñuy wax wadoodu ak haadi wadoodu vingt haadi vingt vingt et un ba trente six on boo xam ne moom bi génn na ci numéro yooyu waaye saa boo waxee trente sept ñu ne kooku lim la ci tur yàlla bu moo nekk trente sept diggante trente huit feeg quarante cinq on boo xam ne moom bi génn na foofu waaye saa boo waxee quarante six ñu ne kooku lim la ci tur yàlla bu ñuy wax waliyu 47 mooy li mu tur yàlla ñuy wax waali 48 li mu tur yàlla ñuy wax quarante 49 nag fekk cinquante 54 am benn tur boo xam ne moom bi génn na ci numéro yooyu waaye nag saa boo waxee cinquante 55 ñu ne kooku li mu tur yàlla ñuy wax mujjibu 56 nag am benn tur boo xam ne moom bi 56 la wala majjidu ak mubdiu majjidu moom 57 la mubdiu nekk 57 diggante nag 58 fekk 61. am benn tur boo xam ne limam bi génn na ci numéro yooyu waaye boo nee 62 rek ne ko lim la tur yàlla muy wax xamidu ak baatinu xamidu 62 la baatinu 62 63 64 65 yi am benn tur boo xam ne lim génn na ci numéro yooyu waaye nag saa boo waxee 66 ne ko lim la tur yàlla muy wax wakiilu 67 moom am benn tur boo xam ne limam bi 67 la boo nee 68 nag ñu ne ko lim la ci ñaari tur yi muy xakkamu ak muhi xakkamu 68 muhyi 68 69 70 71 72 yii am benn tur boo xam ne seen lim génn na ci numéro yooyu waaye nag saa boo waxee 73 ñu ne ko lim na tur yàlla bu ñuy wax jël liilu tur boobu nag am na ñoo xam ne euh, ñu ngi ko jëlee ci jëm miilu waaye ki nga xam ne mooy Cheikh Mamadou Abibulahi Seck borom bi moo ko jox ci jël liilu 75 76 77 yooyu nag benn tur boo xam ne seen lim toll na ci numéro yooyu teewlu wuñu ko waaye nag saa boo waxee soixante-dix-huit ñu ne kooku lim la tur yàlla bu ñuy wax xàkkiimu soixante-dix-huit soixante-dix-neuf nag ngay xàgg quatre dafa am benn boo xam ne li moom génn na foofu waaye saa boo waxee quatre-vingt-six rek ñu ne kooku tur yàlla bu ñuy wax baddihon kon baddihon mooy quatre-vingt-six quatre-vingt-sept boo xam ne li moom bi quatre vingt ko waaye boo waxee quatre-vingt-huit ñu ne lim la tur yàlla bu ñuy wax xàlliimu xàlliimu xàllonk laam yaa mi mara quatre-vingt-huit la 89 benn tur boo xam ne limam bi 89 la ci biir tur yàlla yi teewlu wuñu ko waaye sax boo waxee 90 dañu ko limee tur yàlla ñu ne ko 91 92 93 yii benn boo xam ne ni mu génn ci numéro yooyu teewlu wuñu ko waaye sax boo waxee 94 ñu ne ko lim na tur yàlla bu ñuy wax Asiisu diggante 95 nag fekk nga àgg 103 benn tur boo xam ne limam bi génn na ci numéro yooyu teewlu ñu ko waaye boo waxee 104 rek. ñu ne kooku lim na tur yàlla bu ñuy wax samadu ak xaddalu samadu 104 xaddalu 104 105 106 107 yooyu benn boo xam ne seen lim génn na foofu teewlu ko ñu ko waaye saa bu waxee 108 ñu ne kooku lim na tur yàlla bu ñuy wax xàqu 109 nag benn boo xam ne moom bi 109 la bi 99 yi teewlu ko ñu ko waaye saa bu waxee 110 ñu ne kooku lim la tur yàlla bu ñuy wax xàlliyu 111 112 yooyu benn boo xam ne seen lim génn na ci numéro yooyu teewlu ko ñu ko. waaye saa boo waxee 113 ñu ne kooku lim la ci tur yàlla bu ñuy wax baaq yi 114 mooy limu tur yàlla bu ñuy wax jaamion 115 nag benn tur boo xam limam bi 115 la ci biir 99 yi teewlu teewlu wuñu ko waaye saa boo waxee cent 116 ñu ne ko lim la tur yàlla bu ñuy wax xawiyu 117 mooy limu tur yàlla bu ñuy wax moxeesu 118 mooy limu tur yàlla bu ñuy wax monsi 119 120 121 122 123 yooyu benn tur boo xam ne limam bi génn na ci numéro yooyu teewlu wuñu ko. waaye saa boo waxee cent vingt quatre ñu ne kooku mooy limatu yàlla bu ñuy wax mohindou cent vingt cinq cent vingt six cent vingt sept cent vingt huit yooyu benn boo xam ne moom génn na ci numéro yooyu teeluñu ko waaye saa boo waxee cent vingt neuf ñu ne kooku mooy limatu yàlla bu ñuy wax latifu cent trente cent trente et un cent trente deux cent trente trois cent trente cinq yii teeluñu ci boo xam ne limam bi génn na ci numéro yooyu waaye saa boo waxee cent trente six nag ñu ne kooku mooy limatu yàlla bu ñuy wax moominu 137 fee nga àgg 144 dafa am benn xam ne moom génn ci numéro yooyu waaye saa bu waxee 145 ñu ne kooku mooy limatu yàlla bi wax muhayminu 146 147 148 149 foofu am benn tur boo xam ne moom bi génn na ci numéro yooyu waaye saa bu waxee 150 nag ñu ne kooku mooy limatu yàlla bi wax xalimu 151 152 153 154 155 yooyu benn tur boo xam ne moom bi génn na numéro yooyu teewlu wuñu ko waaye saa bu waxee 156 ñu ne ko moo ni mu tur yàlla bu ñu wax xafoowu ak xayoomu xafoowu 156 la xayoomu nekk 156 157 158 159 160 numéro yooyu nag benn tur boo xam ne lion bi génn ci numéro yooyu teewluwuñu ko waaye saa boo waxee 161 ñu ne ko mooy limu maanixo moo nekk 161 diggante 162 nag feeg ngay àgg 183 benn tur boo xam ne moom génn na foofu ci biir 89 teewluwuñu ko waaye saa boo waxee 184 ñu ne kooku mooy limatu yàlla bu ñuy wax muqaddimu wala muqaddamu moo nekk 184 185 186 187 188 189 190 191 192 yooyu benn tur boo xam ne ci kenn lim génn na ci numéro yooyu teewlu ko ñu ko waaye saa boo waxee 193 rek ñu ne kooku lim la tur yàlla bu ñuy wax qaabilu moo nekk 193 194 nag fii nga àgg 200 benn tur boo xam ne moom bi génn na ci numéro yooyu teewlu ko ñu ko waaye boo waxee 201. ñu ne kooku lim la tur yàlla bu ñuy wax naafion 202 mooy limu tur yàlla bu ñuy wax barru 206 mooy limu tur yàlla bu ñuy wax jabaaru 212 mooy limu mu yàlla bu ñuy wax maalikal mulki 214 nekk limu tur yàlla bu ñuy wax baariu 232 mooy limu tur yàlla bu ñuy wax kabiru 256 moo nekk limu tur yàlla bu ñuy wax nooru 258 moo nekk limu tur yàlla bu ñuy wax maanaam rahimu 268 mooy limu tur yàlla bu ñuy wax sabooru 200 110 mooy limu Karimu 272 nekk limu Basiru 287 moo nekk limu Ra'uufu 291 moo nekk limu Laaru 299 moo nekk limu Raxmaanu 305 mooy limu Qaadiru 306 mooy limu tur yàlla ñu Qahaaru ak Musawiru 300 maanaam 20 euh, 312 mooy limu tur yàlla ñu wax Raqibu ak Baasitu 308 nekk limu tur yàlla ñu wax Rasaaqu 320 moo nekk limatu yàlla bi ñuy wax xasiibu 351 mooy limatu yàlla bi ñuy wax raafion 371 nekk limatu yàlla bi ñuy wax salaamu 377 moo nekk limatu yàlla bi ñuy wax waasiyon diggante nag 378 fekk ngay xàgg 408 benn tur boo xam limam bi génn na foofu teewluwuñu ko waaye boo waxee 409 rek ñoo ne kooku lim la ci tur yàlla bi ñuy wax tawaabu 410 mooy li mu tur yàlla ñuy wax Quddoosu 420 moo nekk li mu tur yàlla ñuy wax Samihon 449 moo nekk li mu tur yàlla ñuy wax Moqsitu Moqsitu moo nekk 449 Fattaahu moo nekk 489 490 nag mooy li mu mu miitu diggante nag 491 fekk ngay ak 499 dafa am benn tur boo xam lim bi génn na foofu waaye saa boo waxee 500 rek ñu ne kooku lim la tur yàlla ñuy wax Mattiinu diggante 501 nag. fii ba 549 benn tur boo xam ne yoon bi génn na foofu amut waaye boo waxee 550 ñu ne kooku mooy li mu tur yàlla bi wax muqiitu moom moo nekk 550 550 maanaam tey mooy li mu tur yàlla bi wax mottaali 573 mooy li mu tur yàlla bi wax baaxisu nee na 630 moo nekk muntaximu 662 moo nekk mutakabiru 707 mooy li mu waarisu 731 moo nekk li mu xaaliqu 744 moo nekk li mu muqtadiru muqtadiru moo nekk 744 770 mooy li ma tudd yàlla ñuy wax musilu 771 moo nekk li ma tudd yàlla ñuy wax xaafilu 772 nag fii nga àgg 801 dafa am benn tur boo xam ne moom bi génn na ci numéro yooyu waaye boo waxee 802 rek ñu ne ko mooy li mu aaqiru 812 mooy li mu xabiiru 847 mooy li mu aaqiru mu akhiru man mongoli mu jox 846 man la jox 847 898 moy li mu tu yalla ñu xafisu 920 moy li mu tu yalla ñu xasimu 960 mo nek li mu tu yalla ñu wax manam xanni kan yu 1000 mo tolok li mu tu yalla ñu wax mokhni nii 1006 mooy li mu tu yalla ñu wax sahiru 1019 nek tu yalla ñu wax sahidu 1100 nak mo nek tu yalla ñu wax sul jalali wal ikrami mille cent 1181 moo tolloog tur yàlla bu ñuy wax xafaaru 1186 moo nekk limu xafooru 1214 moo nekk tur yàlla bu ñuy wax rasiidu 1226 nekk limu sakooru kon sakooru moo nekk numéro 1 ci mboolem tur yàlla yi ndax moo ci ëpp lim Senghor nag lim bokki xaraf ak sa kooru mooy turam lim bokki xaraf ak sa sakooru ci la yàlla tànnee def ko numéro 1 mu njëkk a nekk président Sénégal moo tax bañ ñu demee ba atum 1960 lañ ko tànn def ko président Sénégal mu toog ñetti at nag muy 61 ak 62 ak 63 1963 lañ ko fal benn mandat boo xam ne juróomi at la mu war a dem ba 1968 1968 bu ñu fay gee ñu fal benn mandat boo xam ne juróomi at la war a diire mu war a jeex 1973 bañ demee ba 1973 ñu fal ko benn mandat boo xam ne dafa war a diir juróomi at mu dem ba 1978. 1978 ñu faral ko benn mandat boo xam ne war naa dox juróomi at mu war a jeex 1983 waaye nag maanaam mujj bi toogul lépp dafa toog maanaam 1978 ba 1980 ci atum 1980 la démissionné fekk booba ki nga xam ne mooy premier ministre di Abdou Diouf moom la moom ci luwaa bi li ci nekk mooy su démissionné président bi démissionné premier ministre bi mooy wuutu te fekk Abdou Diouf moo nekk premier moom nag toog na ñaari ati mandat yo ñaari yoo xam ne ci mandat wu Abdou mandat wu la ko toog moom Abdou Diouf mooy 81 ak 82 te 83 lañ ko bu jox ko mandat boo xam ne Abdou Diouf moo ko moom mu nekk juróomi at mu nekk 1983 ak 88 waaye li nga xam ne lañ fal Senghor ci saa yi rek mooy nekk na ñeenti mandat yoo xam ne bu na juróomi at la mu ñaar fukki at ak ñetti at yi nga xam moom la ko toog waaye nag li nga xam moom toog ci bopp réew mi ñaar fukki at la. ci lañ ko xayma ak ñetti mbolom fan yu teg ay fan ñaari at yi nga xam moo ko desoon ci nguuram mu jox ko Abdou Diouf mu toog ko ci réew mi Sénégal jiite ko li ko sabab mooy alxuraan dafa nekk vingt-huit xaraf te vingt-huit xaraf yooyu maanaam vingt-trois rek la quatre-vingt-dix-neuf yi génn te quatre vingt dix moo ci ëpp lim nekk mille deux cent vingt-six tolloo lim ak turu Senghor ci lii la yàlla leeral Cheikh Mamadou Abdoulaye Seck na ko moo tax mu tànn ko teg ko ci bopp réew mi mu njëkk a nekk président Sénégal loolu nag la Cheikh Mamadou Abdoulaye Seck leeral ki nga xam ne nag moo leen ko doon jàng di leen ko defaraat ak leeral seen mbokkum jaamu yàlla la Muridullahi Seck borom digal euh, di jégalu nag lépp loo xam ne jumte la ci euh, lépp lu jub ñuy ñaan yàlla mu yokk ñu kàttan bañ mën ko di jubal waxtu bu nekk ñoo amal waxtaan fii ci seen maanaam maanaam Seck borom digal ngeen di famille wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërë ngeen jëf